tarde tareeran tareera Sénégal TV moo fi ñëw tey moo taxit ñu di leen firi ci lu bees tàq moo taxit ñu waxtaan ci Sénégal TV léegi da ngay teel li nga teel ngay xent raagi da ngay dindi réew ndag rëy keef gi moo na ci ga kon daal Sénégal TV yal na yàlla def jàmm gun ñu jëmati paak ak wërsëg gun wërlu sëg ak wér xewal gun xewal ñu naan ak seq gun seq ak Sénégal TV yoo yoo yoo tarde tareeran tareera Sénégal TV kullu man daay man ngarar wa kullu man yegaago fa yegaago yeef wa kullu man bañaane attaat ronxaan daxala naar jëlal Sénégal TV yo yo yo yo tarde tareeran tareera mooy yéen baage ba ma la xaaf gi xaarama seet sama xel laam gi la ma joxoon a ngi nii ci senegal TV tarta tareeran tareera yaa ilaha illallah ne leen xóot tey dégg ne xajja tey gis taata na xeen rek mën a xelale te dinaa leen firi ci Sénégal TV ba ngeen kontaan tarta tareeran tareera loola jaral jolli yi tarta tareeran tareera da nga naa Sénégal TV tarta tareeran tareera Sénégal TV mii tarta tareeran tareera moo bëgg askan wi tarta tareeran tareera mooy topp soxla askan wi tarta tareeran tareera Sénégal TV mii tarta tareeram tareera mooy luqati jëmmi askan wi def ko ci écran bi tarta tareeram tareera askan wi leen seetaan tarta tareeram tareera wasay mi ngi mel ni ku dëkk rii xoole a xef ca pond xoole tarta tareeram tareera ab koñ la ca pond xoole tarta tareeram tareera nee na lépp lu ngeen bëgg ci jàmm fii ay yoo am na fi sax waaye ni koy waxee bëggiwuma ko noonu ndax xoolal ma bari na tareeraan tareera ñax bari jàng yi mbir mi neex na ba ya ndax ya ya waral ya TV la yooya tafaas mbaaw naanal nen ya ya ya ya demal nga ya, naan nen tarta tareeram tareera ah waa booy yow fi ma yóbbu naqari na ma de tarta Tarera Tarera Senegal TV dal. tar tareera tareera Ndiané Mbaye arrondissement Meone département Tivaouane mi ngi ci ginnaawam tarda tarera tarera njobuk daya min ci ginaaw Senegal TV tarda tarera tarera daya madak daya njob min ci ginaaw senegal TV tarda tarera tarera njega ak jangar ñu ci ginaaw senegal TV tarda tarera tarera njuufee nang bay Bakar ñu ci ginaaw senegal TV tarda tarera tarera lepp nag grâce à nar jañ Ngom mi dekk ci dekk bi tay defal dekk bi ñu ci ginaaw senegal TV tarda tarera tarera senegal TV dal moy télé bi nga xam mo bëgg-bëgg askan wi kon nag ñun nan ci naa nikk ni ci jàkk kundurub sëñ Fallu nikk jàkk taj ci tekk yaa ngi yow moom la ñuy ànd ak Sénégal